arda suuf madatnaaha tàllal nañ ko wa naa sànni nañ fiiha ci suuf si mooy samp nañ fa rawaasiya ay montagne yoo xam ne ñoo koy dëgëral gis nga yàlla bi mu bindee suuf ba pare comme boo tabaxee ni ngay jëlee ay poto def si pour mu dëgër la yàlla jëlee ay montagne samp ko si biir suuf si mooy dëgëral suuf si ba suuf si du yëngu mu ne wa ambat naa saxal nañ fiiha si suuf si saxal nañ fa min kulli shay'in min kulli shay'in ci lépp loo gis mawzun mu nekk loo xam ne lu ñu lu ñu peese la mooy lu ñu màndaxela loolu mooy lan amul benn côté ci suuf si foo xam ne la tegee sa kawam attanut ko yàlla nee na suuf si yépp fu nekk seet na poids bi mu àndal ma teg loola waaw moo tax mu ne min kulli shay'in mawzunin wa jaal naa defal naa lakum ñel leen fiiha si suuf si maayisha ay palaasu wutukaay dund kon nag dëkk bu nekk gis nga Koungheul gi waa Koungheul yëpp bu ñu toogoon fii kenn tukkiwul ñu am xam-xam bu ñu utiliser suuf si ñëpp dañuy dund ndax yàlla nee dëkk bu nekk ña fa dëkk defal naa leen lañ war a dundee ci biir suuf sa léegi nag ñu xam ko wala ñu ñàkk koo xam loolu mooy la fa nekk ñu jaar sa yoon wa wala ñu ñàkk faa jaar ñu rëy koo def wala ñu ñàkk koo rëy def tey boo xoolee dëkk bu nekk dëkk bu nekk ci Saalum bu leen neexoon duñ jënd dara lépp ñoo koy lekkal seen bopp waaye tey li ko waral mooy euh, li ñu war a li ñu war a jëfandikoo suñu suuf bi jëfandikoo wuñ ko la ñuy bay war see mën a dundee jéemuñ koo dundee est xam nga ne feebar bu la dal ci dëkk am na garab gu koy faj sa dëkk ba ndax lan environnement bu nekk fépp foo nekk la ngay dund ngelaw la ngay nokki ak la ngay nekk la lay feebar fa lay nekk waaye la lay faj mu nga foofa waaye nag problème bi ñu am mooy jànguñu ko jéemuñ koo jàng dimbalewuñ ñu pour ñu mën koo xam loolu moo tax mbir mi nekk problème waaye yàlla ne na suuf su nekk def naa fa lañ war a dundee sa biir suuf sa mu ne wa jaal naa defal naa leen lëkkum ñe leen fiiha si suuf si maisha ay place wutukaay dund waaye def naa fi tam waman ñoo xam ne lastum déet yéen biraziqiina ngeen di wërsëgal lahu ñel ko mu ne am na yeneeni jaam yoo xam ne ñu ngi dëkk ak yéen yéen wërsëgalu leen leen joxu leen leen li ñu joxu leen ñu naan te ñu ngi lekk di naan loolu nag yaakaar naa ki dëkk ci àll bi loolu war na koo mën a xam xoolal tey rab yi ci àll bi boo demoon ci àll bi mën nga wër ba sonn doo gis ndox ñoom fu ñuy naanee xanaa doo wax ne duñ naan doo gis fenn foo xam ne mu ngi taa ndox walla ci place yu néew ngay gis mu taa ndox te terewul yàlla ngi leen di jox ñiy naan di leen jox ñiy lekk yàlla moo xam nu mu leen koy joxee kon nag yàlla nee na moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalekat bu mag boobu nga xam ne mooy suñu royukaay nee na فلو توكلتم على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطيور تغدو خماسا وتروح بتانا من سنين سكنكوهن في يالا ويرو في يالا ياكار يالا كم نكو بيتي يدفع يالا دانا لين قيولة كم نمي قيولة بيتي من بيتي بني قي دارا دون كو يور دون دينك دارا waye bala ngon bi jot dañu juy seen biir ba mu fess ñu delu waat mu ne kon nak ñun li wéeru ci yàlla te yàlla waxoon nañu ne wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ku wéeru ci man rek man doy naa la kon nag nañu wéeru ci yàlla mu de la waxaat ne wa ala allahi fa tawakkalu yàlla na ngeen wéeru ci moom mu de la waxaat ne alladina qaala lahum annaasu إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نيون فانقلبوا بنعمة من الله وفضل lam sa suu su tabiu ridwanallah wallahu dul fadli azim ñi nga xam ne su problème amee ñu ne leen tiit leen daw leen ñu ne ñun de wéer nañ suñ ginnaaw si yàlla yàlla nee na ñooñu dara dara du leen dal kon nag mbokk yi nañu wéeru si yàlla nañu dellu si yàlla nañu yaakaar yàlla waaye wéeru si yàlla yaakaar yàlla est-ce mooy dem tëdd sa penc ma di waxtaan déedéet wéeru si yàlla mooy da ngay jug te yaakaar na yàlla dana la may waaye tëdd fi nga tëdd di nelaw nekk sa daat ja di werante ba ngoon jot nga ne man de yàlla laa wéeru dangay wax wéeru woo si yàlla wéeru woo si yàlla de yàlla nee nañu lépp dama ko defal sabab jug leen ngeen wuti sabab yi topp leen ko waaw fa firru ilallah daw leen ngeen jëm ci yàlla bu leen taxaw beneen bi mu ne wasaariu ila magfiratin min rabbikum nangeen ngeen daw dem wuti yërmande yàlla di yëgg wuti njéggalu yàlla kon yàlla waxul ñu ne nañu topp di ko xaar waaye nañu daw jëm si moom waaye tëdd fi nga tëdd rek sa dàtte ja ba pare nag ne danga am soo amul yow yaa ko def boo xoolee ñun saalum saalum ndax ñun comme ay saalum saalum lañu wala ñu ne ñun bambuk bambuk bokk na si lu ñu gën a tardeel mooy loolu bu ñu bayee ba nawet wàcc lu ñuy def jaay ko toog di ko lekk ba pare tëdd sa dàtte ja noor bi yëpp dootuñ ko liggéey bu nawet waaw léegi boo liggéeyee 6 mois toog lekk ko 6 mois pour nga defaat leneen lu sotti day xaw a jafe dangay liggéey 6 mois kay ci tool yi soo paree boo ci jógee nga seeti leneen loo xam ne danga koy takkale waale ndànk-ndànk di ci mën a am tuuti su boobaa dana tene waaye nag tey su fekkee dangay bay ba nawet wàcc nga tëdd naan man wéeru naa si yàlla wéeru woo si yàlla kon nag nañ ko bàyyi xel kon nag yàlla ne am na ñoo xam ne lastum bi rafiqihi yéen joxu leen leen te danañu lekk moo tax ku nekk ci àdduna bi rek jàppal na yàlla dana la jox nga lekk dana la jox nga naan mu ne wa in min cheyin amut lenn loo mën a gis illa xendanaa lu dut nekk na si ñun xazainuhu ay magasinam yàlla ne loo mën a gis rek maa ngi yor ay magasin nga ne ko waaw a ah, ndax doo ko wàccee ñun ñëpp ñu amandoo mu ne déedéet wa ma nunaziluhu duñ ko wàccee illa bi qadrin lu dul kem maalumin bu ñu xam gis nga doomu aadama li lim soxla su ko amoon rek dee xam nga mooy lan alal ji ñëwandoo waa li nga war a dund li nga war a am ci àdduna yëpp bu la ko yàlla joxee benn bis bu jeexee rek nga dee nit ki boo demee ba desexoo benn góoxu ndox boo war a naan ci kaw suuf da ngay dee boo demee ba deseetoo benn loo war a lekk da ngay dee kon nag yàlla nee na wa ma nunaziluhu illa bi qadrin maalumin moo tax gis nga am na ku ñàkk koo xam ne na muñ ñàkkam góob de waaye gis nga moom li mu war a am ci àdduna bi bëriwul bu fexee nag ba loola dajee ci moom buy dajee ci moom bu paree rek mu dee li nga war a lekk daal bis bu daj bu matee rek nga dee waaye waxuma nag nga ñëw tiim saako ceeb bi nag commencé bët bu set nga lekk benn tibb wala ñaari tibb ne nag ndax damay sakkanal déedéet loolu tam du leen traité kon nañu bàyyi xel loolu waaye wa maa nunaziluhu illa bi qadarin maalumin waaw yàlla ne dama koy wàcce waaye nag ci kem kem bu ñu xam la mu ne wa arsalnaa yebal naa arriyaaxa ngelaw yi lawaaqiha muy ëpp dégg fa anzal naa ñu wàccee gis nga baatu riix riixun ak riyaahun ah, jamono la ak mufrad singulier la ak pluriel suñ ne ah, riyaax foo gisee ñu wax ngelaw def ko mu nekk pluriel mu nekk mbooloo xéwal la waaye foo gisee ñu ne riixun mbugal la buñ ko defee kenn rek mbugal la boo demee alxaqatu ma alxaqa wa ma adraka ma alxaqa kasaba samudu wa aadun bil qaria fa amma samudu fa uhliku bi taaxiya wa amma aadun fa uhliku bi riihin gis nga riihin foofu benn la waaye mbugal la foo alquran nag fi mu commencé ba fi mu jeexee foo gisee mu ne riixun rek mbugal la gis nga riixin sarsarin aatiya mbugal la fu yàlla ne riixun rek mbugal la bu ne riyaaxun rek ngelaw la loo xam ne day indi taw pour indi xéwal nit ñi dundee ko dégg loolu pour jàngkat yi la mina samaahi <coughs> dégg fa anzalna wàccee nañ mina samaahi jóge ci asamaan maa an ndox fa asqaynaakumuhu ñu nàndal leen ndox ma <coughs> buñ leen nàndalee ngeen naan ba doyal la des nu ko yàlla def mu ne wama antum déet yéen bi xaasi nii na ngeen mën a denc lahu ndox ma waaw bu asamaan si tawee ba pare ndox ma ñun tool yi jël si lañ say jël la sa def yàlla ne mënu leen koo denc waaye nag yàlla ne maa leen ko jël dencal leen ko ci biir suuf si su ngeen soxlawaatee ndox ëllëg ngeen gas jotaat ndox moom jëlaat ko te pourtant bu neexoon yàlla ndox ma seey ba yegg foo xam ne yow dootoo ci mën a jot waaye yàlla day jëlaat ndox mi dencaat ko ci biir suuf si bu ëllëgee buñ ko soxlaa moo xam dañ koy gas tuddee ko teen wala ñu tuddee ko forage wala nuñ ko mën a tuddee waaye buñ ko gasee jot ndox mooma mën koo utiliser waat loolu xew xewal la goo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ñu ko defal moo tax xewalu ndox war na tax ñëpp di sant yàlla tey imaginel biron ndox su jaroon li biron diwlin di jal di jar ñun fu ñuy dundee ndax tey kenn ku nekk si ñun boo xëyee benn biron ndox da ko utiliser si sa diggante sangu jàpp naan raxas pomp yooyu yëpp li nga ciy utilise si ndox bu fekkoon ne day jar vingt mille francs konoon su boobaa ñun suñ dund gi dootul neexati waaye yàlla jël ko yombal ko ba bu seeree ba seer juróomi dërëm lay jar boo demee fenn sax ñu ne la ñetti dërëm lañ la koy jaayee léeg-léeg nga ñëw ci nit ki sax ni ko biro ndox laa bëggoon nga may ma mu may la ko yàlla moo jël ndox yombalee ko noonu pour suñ dund bi yomb te nag solo bi mu am biro diwlin amul ko ndax nit ki mën ngaa dund ba dee doo lekk diw du la wàññi dara waaye boo naanul ndox dee foofu nag loo ciy déggee wa in tahudu nicmatallahi fala tuxsuha yàlla ne teewal yi ma leen defal su ngeen ko doon lim du ngeen ko mos a dajal Hmm? kenn mënu ko dajal waaw <clears throat> ah. mu ngi noonu kon mu ngi noonu wa antum lahu bi xaasinin wa inna naka ñun la naxnu ñun nux yi ñooy dundee ñoo ñooy dundal wa nu miitu ñooy rey wa naxnu ñun alwaarisuna ñooy donn mooy su fi ñëpp jógee li fi yëpp ñun lañ koy bàyyee yàlla ne wala xad naa xam nañ almustaqdimina ñi jiitu minkum si yéen wala qad alim naa xam nañ almustaqirina ñu mujj ñi tam xam naa leen wa inna rabbaka naka sa borom huwa moom yaxshuruhum dana ñi njëkk si adduna bi ak ñu mujj innahu naka yàlla xakimun aji xereñ la waaye alimun aji xam la kenn ku nekk ba ngay dee fan nga dee woon ba mu man laa indi mu ñëw si silsilatu xalqil insaan bind gi mu bind doomu aadama ak ci lan la ko bindee mu ne wala xat sa dëgg-dëgg xalax naa bind nañ al insaana doomu aadama min salsaalin ci luy rembi rembi wala nga ne boo xam ne dégg nga wala nga ne luy rembi rembi min xama in ban boo xam ne masnuunin bu soppeeku la wala nga ne bu ñu tàngal la nga ne ko waaw doomu aadama ci ban nga ko bindee jinne yi nag ci lan nga leen bindee woon ak jinne ak doomu aadama lu njëkk ci àdduna mun la jinne yi ñoo fi njëkk doomu aadama yi foofu ndax bul fàtte ne iblis jinne la te keroog bi yàlla naree bind doomu aadama malaaka yi la dajale iblis mu ngi woon seen biir mu ne leen inni dégg nga mu ne leen inni jaa'ilun fil ardi xalifa dama fi nar a def am mbindeef boo xam ne daf ma fi wutu boobu iblis seen fa aay bi sax firi na ko mu ne wal jaan na jinne yi xalax bindoon naa leen min xablu li njëkk may bind doomu aadama min naari samoomi ci safara boo xam ne buy saxaar la saxaar safara la boo xam ne buy tàkkal la kay raax mu ne wa is qaala fàttalikul ba mu waxee rabbuka sa lil malaikati ñeel malaaka ne inni naka man xaaliqun aji nara bindala basharan bindef bo xamne min salsalin day joge ci luy rembi rembi min hama intiban masnunin buñu tàngal waaye fa isa sawaituhu suma ko yemale wa nafaxtu mawal fihi fiihi si min ruhi sama sekkere faqahu na ngeen tok lahu ñel ko saajidiina di ko ba yàlla waxe lolu bam binde mam adama xamal ko tur yam ko wala xamal yeb fa sajada sujudna al malaikatu malaikai kulluhum ñom ñep ajmauna ku ñom ñep denga, nga mu illa iblis bam def iblis iblis mom nak aba bañ na an yakuna mu ka ma sajidin and ak ñi sujud waye bu yalla ne malaaka yi sujud nañ bam def iblis taxut iblis bok ci nit ñi kat taxut iblis bok ci malaaka yi iblis do malaaka yalla dana ko wax sax ndax dana ko wax ci benen aya mu ne minal jinni fa fa sax kon jinni la dañ la wax ne la demal sa kër ga nga xolal ma diw nga ne kër ga fekkuma fa kenn ku dul mbam tax na mbam mi bok ci nit ñi taxul mbaam mi bok ci nit kon nak ñepp su joon nañ bam def iblis aba bañ na ay yakuna mu nek ma sajidi qala yalla ne ko ya iblis e yow iblis ma laka lan mo la ñel alla an takun alla takuna nga bañ a nekk maa dégg and ah, ak lan moo tax nga baña a an laa takuna laagi saa it rek la lim bëggoon mooy an takuna nga nekk maa saajidina ànd ak ñuy sujjot qaala iblis ne ko lam akun nekkuma li asjuda di sujjoot li basharin ñeel mbindeef xalaqtahu bind nga ko min salsaalin si luy rem bi min xama in si ban masnuunin bu yàlla ne ko faxruj génnal min haa aljana ji fa innaka naka yow rajimun ku ñuy jam nga wa inna alayka nekk na si yow allahnata sori la yërmande ila yawmi diini ba keroog yawm alqiyam xaala iblis ne ko rabbi yow sama borom fa anzirni muñal ma ila yawmi yubasuun ba bis ba def xaala yàlla ne ko fa innaka naka yow min almunzarina bokk nga si ñi muñal ilaa yawmin ilaa yawmil waxti ba heure ak bis dégg nga bu ñu xam te mooy keroog bis ba ñuy wal bufta gi mooy ñëpp dee keroog bis boobu moom dafa bëggoon yàlla muñee ko ba du dee yàlla ne ko déedéet danaa la muñal ba keroog ba ñuy wal bufta gi xaala iblis ne ko rabbi yow sama borom bi ma axwaytanii si beewal gi ma beewal la uzayinan na danaa rafetal lahum ñeel leen fil ardi ci suuf danaa fexe ba lépp loo xam ne mooy yàlla la ma def ko mu rafet ci seen bët soo waxee ñu ne xaaral ma def ko rek te tuub kañ kañ ngay tuub est-ce que yàlla dana ko nangu wala uxwiyannahum iblis ne danaa leen beewal ajmaina ñoom ñëpp illa ibadaka ba mu def sa jaam yi minhum si ñoom almuxlasina ñuy sellal kon nag soo bëggee mucc ci iblis rek da ngay sellal ku ne la man fu ma toll damay xelaat lu bon neeku xel ba selal bo selale rek loolu dang ci mucc ndax yàlla neena wala iblis sax moko waxal bopam ne dana beewal ñep bam def ñi selal kon nak ku selal iblis manu ci yow dara qala yàlla ne hadha li siratun yon la wo xamne alayya si man mustaqimun bu jub ci rek inna ibadi yàlla ne ko sama jaam yi nga xamne dañoo gëm yàlla laysa lakka déet di la ñeel alayhim si ñoom sultaanun benn lay illa man ittabaaka bam des ku la topp minal gaawina si ñu beew yi te mooy ñu weddi yàlla mu ne ko nag sama jaam yi mënoo si ñoom dara bam des ñu dëgër bopp ba topp la te képp ku dëgër bopp ba topp la wa in na ma naka safara la mawiduhum seen rendez-vous lak ajmaina ñoom ñëpp lahaa ñeel na ko sabaatu abwaabin juróom ñaari buntu li kulli baabin ñeel na bépp buntu minhum si ñoom jusun xaaj moo xam ne maqsumun bu ñu séddale juróom-ñaari bunt yooyu nag juróom-ñaari bunt safara yooyu moom mooy turi safara yooyu ngay dégg bokk na ci jahannama bokk na ci jahim bokk na ci saqara bokk na ci hawiya dégg nga bokk na ci laza bokk na ci sair bokk na ci xatama juróom-ñaari bunti safara yooyu moom lay wax ne lahaa sab'atu abwaabin li kulli baabin juz'un maqsumun li kulli baabin juz'un maqsumun noo ko mën a déggee ñu kër gi dañ ko tabax juróomi ñaari appartement waaye apartement bu nekk am na ñetti néeg ak saal kon tey maanaam xis jus bu nekk maanaam jahannama boo dem wala soo demee si jahannama wala nga dem jahim wala nga dem sahir wala nga dem xatama wala nga dem hawiya wala nga dem laza boo si dem dañ ko defaat ay xaaj-xaaj ay parti parti loolu la bëgg a wax li kulli baabin jus un maxsuumun yaakaar naa dégg ngeen li ma wax noonu la demee dégg kon safara am na juróom-ñaari safara waaye ci biir safara yi boo ci dem dafa amaat ay parti parti yoo xam ne ñoo fa nekk dégg yàlla nañu si yàlla musal dégg laha sabaatu abwaabin li kulli baabin minhum jusun maqsumun innal muttaqina naka ñu ragal yàlla ñi yàlla nañu si yàlla boole ñoom de fii jannaatin ñi ngi ci aljana wa uyunin ñi ngi ci ay sewnde yàlla ne udxuluha dugg leen aljana bi salaamin ci jàmm aminina ngeen di wóolu yàlla nañu ci yàlla boole xëy suba rek ñun laay waa aljana ngi noonu duggal su boobaa amul kenn kuy mere kenn amul kenn kuy bañ kenn waa aljana suñu xasee dugg aljana lépp luy waral nit ki bañ sa moroom yàlla da koy dindi ci yow moo tax mu ne wa nazana danañu rocc maa fi sudurihim li nekk seen dënn yi min xillin ci ay mbañeel dégg su boobaa nag ñi nekk ay mbokk xala sudurin tëdd ci ay lal mutaxaabilina di jàkkarle laa yamasuhum du leen laal fiiha ci aljana nasabun coono aljana amul coono ndax aljana amul woor aljana amul liggéey amul taxan amul fóot amul bale amul raxas amul jaayi amul benn sonn julli sax amul fa amul julli amul woor amul jaamu yàlla def lu la neex rek loo bëgg a def rek def ko laa yamassuhum fiha nasabun mu ne wa maa hum déet ñoom sax de min ha sa aljana jooj bi muxrajina ñi fiy génn li ci gën a neex nag mooy doo ci génn gis nga àdduna bii tey man nañ la yobbu fu neex waye bala nga fa genn mu naqadi xam nga lu koy naqadi yaangi tok di xalaat ba eh yi de neex na hotel bi de tey moom na nekk waye na bu suba rek nga he suba ñu fi defé de ñu fi defé ngay xalaataale mu ngi commencé di naq walel tay wa mu ngi melni talibi niñ ko doon waxee àllarba moo dàq alxames xam nah, nga lu tax ndax ba da ngay aljuma ngay sentu ngontal àjjuma la ngay séentu mooy naqadil alxames ji waaye nag àllarba ji moom day neex ndax lan dangay ngay séentu ne suba duma ma jàng waaye nag suba moom da ngay séentu ne gannaaw suba damay jàng comme yaa ngi séentu ne nag damay jàng kon séentu gi ngay séentu jàng mooy commencé di naqadi waaleel bis bisu tay bii lool la léegi nag aljana loolu amul fa aljana moom lépp day neex rek ndax wa maa hum anha wa maa hum minha bi muxrajin soo fa demee doo génn yàlla ne ibaadi sama jaam ne an nii naka man ana man alxafuuru may aji baxale arrahimu may aji yërëm yal nañu yàlla baxal yal nañu yàlla yërëm mu ne de wax leen ne ku mën a jéggale laa ku war ku mën a yërëm laa waaye nag wa anna azabi naka sama mbugal tam huwa moom al azabu mooy mbugal al alimu bu métti moo tax gis nga boo nekkee ci àdduna bëgg a nekk yarekat il faut nga jël jikko bi ci yàlla mooy ne da ngay mën a yërëme waaye bu duma jotee da ngay duma waaw gis nga yàlla li muy baax baax li muy mën a mën a bind nit ñi fu mu waxee gis nga ba mu ne ghafiri zambi wa qaabili taw bi lu mu ci teg di iqaab ku tar mbugal la kon nag tey moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ñu ko mu ne su ngeen amee ay jaam dee leen teg yar bi fu ñu koy gisee boo jëlee karawaas ji teg nii mu koy gis dana sóoraale dana tax duñ ko dóor ndax dana sóoraale cravate bi yar bi dana ko sóoraale ba tax duñ ko dóor kon nag boo ko bëggee dimbale da ngay jël yar bi teg sa côté mu seen yar bi moytu ba tax doo ko dóor moo tax yàlla loolu lay def dañuy indi xéwal xéwal gi neex lool mu ne yéen a ko moom waaye jël yar tegaale sa côté ba nag su ngeen moytuwul nag ma caw leen noonu la yàlla di def dégg mu ne nabbi xamalal ibaadi sama jaam yi ne nii naka man ana man alxafuru may aji baxale arrahimu may yërëme waaye al wa anna azabi naka sama mbugal huwa moom mooy mbugal al alimu bu mét wa nabihum xamal leen xan day fi ibrahim si gani yenente yàlla ibrahima yi ganu yenente yàlla ibrahima yi mooy ñan mooy malaaka ya yàlla yónni hoon ñu war a dem sa nitu yenente yàlla luut ya doon def mbiru góor jigéen mooy muy homosexuel mu ne leen demal nga alaji leen waaye bu ngeen demee ngeen jaaraale kër yonent yàlla Ibrahima ngeen bégal ko ne ko soxnaam sii nga xam ne toog na ba màggat amul doom dana am doom bi mu yëgsee rek yonent yàlla Ibrahima baax lool tabe lool mu gaaw dem jël benn nag rek rendi ko ñëw lakk ko tegal leen ko waaye malaaka yi du ñu lekk ndax melokaan nit lañ ñëwee woon mu yaakaar ne ñi ñu ñu ñuy lekk lañ du ñu lekk moo tax yàlla wax sax wax na ko mu ne bi mu xoolee gis ne ñoom laaluñ ko ah léegi nag mu commencé jàq bi mu jàqee nag malaaka yi ne ko laa taxaf bul diit bu ragal ñun de yàlla daf ñoo yónni inna ursilna ila qawmi luutin yàlla dañoo yebal ci nitu yenent yàlla luut ña doon def góor a góor di sëy ñooñu la ñu dem pour alage leen waaye nag dañ lay déggalaale ne sa soxna si dana am doom soxna si ba mu déggee loo rek mu commencé nag di mbéj boppam di mbéj boppam di xaacu ndax lan mu ne moom ni màggatee nii amul doom ba léegi yàlla nar ko may doom ndax kontaan moo tax gis nga yàlla bu la mayee doom xéwal la gu rëy goo xam ne war nga ko di ko sante yàlla ndax nit sonn na nit ëppale na la alal nit ëppale na la daraja sonn ba bëgg dee te amul njaboot kon nag yàlla bu la mayee doom doom jooja war nga ko sante sa borom subhanahu wa taala ndax bu ëllëgee doom jooja lañ lay xoolee te doom jooje lépp lu mu ci def ci tiyaabu bu ëllëgee dana la ñeel kon nag yàlla bu la mayee doom kontaan moo xam doom ju góor la kontaanal moo xam doom ju jigéen la kontaanal te wax naa la ne amul benn julit boo xam ne am na droit toog di ñaan yàlla doom ju góor déedéet ñaanal yàlla rek habli min asalihin gis nga yéen yàlla ibrahima bi mu koy ñaan sax loolu waxoon rabbi habli min asalihin yàlla may ma doom ju baax jigéen ji ngay daw nii bu yow doo juddu bu taxutoon ak jigéen doo am soxna bay xalaat am doom kon nag jigéen valeur bi mu am ak bi ko yàlla jox bu mu tax mukk yàlla may la doom muy jigéen ngay découragé te li tax duñ ko ñaan mooy ne bis boo toppee di ñaan yàlla doom ju góor ba mu xëy may la doom ju jigéen xam nga lu lay dal wa bu bushira ahaduhum bil unfa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kasimun yatawaara min alqawli min suui ma bushira a yumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turaab te xam nga doom ju jigéen euh, doom ju jigéen xasana la doom ju góor neema la doom ju góor bu la ko yàlla joxee bis dana ñëw mu laaj la ko xéwal la goo xam ne danañ la ko laaj waaye jigéen nag euh, doom la joo xam ne nii xéwal la goo xam ne dañ la koy jox bu ëllëgee tiyaabu rek lay nekk ñeel la loolu nag ñu firil la ko pour nga man koo dégg doom ju dangay def si moom bu ëllëgee pour mu aw la bu ëllëgee bu takkee soxna dootuma liggéey bu ëllëgee bu takkee soxna sama soxna wàcc bu ëllëgee bu amee alal su fekk ma màggat mu yore ma waaye doom ji jigéen nag dangay ñëw di financé si moom rek xëy suba mayee ko waaw ne am jëlal yóbbu te ki nga ko may yaa ko gën a soxla fuuf waaye da koy jël may ko bi mu juddoo ba léegi yaa ngi jël alal di def si moom di jël alal di def si moom di jënd yére di jënd dàll di jënd ordonnance di def lu nekk xëy suba ne ko am jëlal ma may moo tax nit buñ la mayee soxna tam waroo ko waroo fontoo soxna sax war nga ko respecté war nga ko jox cër ndax kuñ jëlee kër baayam mu bàyyi léppam ñëw sa kër kon war nga koo yitteel dégg moo tax mu ne wa nabihum xamal leen am bay fi ibrahim ci janu yenent yàlla ibrahima yi is daqalu ba ñu duggee alayhi si ibrahim fa qaalu mu ne salaaman jàmm qaalat dégg ibrahima moom itam ne sala dégg moom itam ne leen inna naka ñun minkum si yéen wajiluna way tit lañ ñu ne tit nañ ak malaaka ñi ne ko la tawjal bul jàq inna naka ñun nu ga dañ lay bégal bi xulaamin ci xale bo xamne alimin bu xam la qaala maam ibrahima ne abashartumuni ndax da ngeen may bégal nema dana am doom ala an massaniya si ni ma laalee alkibaru fa bi ma tubassiruni lan ngeen may bégalee ne danaa am doom qaalu malaaka yi ne ko basharnaaka bégal nañ la te liñ lay bégal bil xaqi dëggalas yàllaa ñu ko wax fala takun bul nekk mukk min al qaanitina bokk si ñiy naagu ndax yàlla nee na hoon laa taxnatu min rahmatillahi inna allaha yaxfiru zunuba jamian qaala mu ne wa man yaxnut du naagu min rahmati rabbihi si yërmande yàlla illa dalluna lu dul ñu sànku ñi qaala ibrahima ne fama xatbukum lan mooy seen mbir ayyuhal mursaluuna yéen ñi ñuy yónni qaalu malaaka yi ne ko inna naka ñun ursilnaa yónni nañ ñi ilaa qawmin si nit ñoo xam ne mujrimiina ñuy def bàkkaar lañ ilaa aali lootin ilaa aala lootin si wàkkar loot inna naka ñun la mun na joohum danañ leen musal ajmaina ñoom ñëpp illa mraatahu ba mu def soxnaam qaddar naa dogal nañ innaha naka moom la min algaabirina bokk na si ñey des si mbugal ma ñu ne ko yàlla moo ñu yónni ñu war a dem ala lootin nitu loot ya almursaluuna yenente yi ba yenente yi ñëwee soppeeku nekk góor ñoom ñi seen leen commencé di leen sàkku bëgg leen violer yaakaar ne ay euh, nit lañ xaala dégg nga euh, mu ne innakum naka yéen xaw mu nit ngeen ñoo xam ne mun na ñu ñu fakk ngeen xàmmehuma leen lut moo leen wax leen ne leen yéen de xàmmehuma leen xaalu ñu ne ko balli fi nekk ji naaka dikkee nañ la bi maakaanu sa la ñu nekkoon yam taruna di werante fii waxoon nga leen yàlla dana leen mbugal ñu yaakaar ne du dëgg tey nag ñun ñëw nañ pour mbugal lañ mbugal leen waa wa aataynaaka dikkee nañ la bil xaq si dëgg wa naa naka ñun la saadiquuna way dëggu lañ fa asri na nga rañaan bi ahlika sa njaboot bi xiixin ci dogit mina layli si guddi wa tabi na nga topp adbaarahum seen ginnaaw mu ne ko yow lóot soo tëddee ba guddi nanga nga génn nag jaar sa yoon di dem yow ak ñi nga xam ne ñoo gëm bu kenn gestoo nag ku gestoo rek yàlla dal na mbugal wala yeltafit bu mu gestoo minkum si yéen ahadun kenn nag wam du continuer leen xay surtout umar wun fañ leen digal mu ne waxa day naak dogal nañ dégg nga wala nga ne wax a xaday naa wax yu nañ ilayhi jëm si moom zalika lool zalikal amra boobale mbir maanaam waxuñ ko ko jëxëran waaye dañ ko ko wax yu mu xam ko ne ko anna daabira haulayi naka ndiggu gaa ñii nga xam ne ñooy jéem a sàkku góor maxtoo ñu ñu dagg lañ musbihiina bu ñu xëyee mooy suba teel la yàlla di alak ba yàlla di alak nag dafa yëkkati suuf si rek këpp ko seen kaw ña tukki woon mu jël xeer taw ko seen kaw mune waja wajaa ak ñëw ahlul madinati wa dëkk ba ñëw nañ yastabshiruna di kontan qala mune len in haula'i haulaai naka gaañi bayti samay gan lañ fala tafdahuni bu len ma gàccal aaye bu bax la nak si ñi nga xamne da yàlla dafa xewalal nga nar am xew nga diko jàng lu bax in haula'i haulaai fala tafdahuni yàlla ñi sa am nga ñi samay gan lañ yàlla bul ma ci teg gatch wa taqulla ragalen yàlla wala tuhzuni bu len ma gatchal dégg si samay gan bu leen ma gàcceel rek xaalu waa dëkk ba ne ko awalam nan haka kanaa terewuñ la anil aalamiina ci góor ñi fi ñëw wax nañ la góor ñu fi ñëw ñëwati baxee ñu ko xaala mu ne leen haulaa i ñii yi doom yu jigéen lañ in kuntum bu ngeen nekkee faa'iliina di def leen jigéen yi ci dëkk bi bëri na tee ngeen a takk ci jigéen ñi te bàyyi góor ñi dégg nga yàlla ne la xomruka maa ngi giñ ci sa dund yow yeneen ci yàlla muhammad innahum naka ñoom la fi sakratihim ñi ngi ci man mandi gi yaamahoona di dengi dengi waaye ba loola amee fa aqasathum jàpp na leen a sayhatu xaacu malaaka ma mushriqiina jamono ba jant bay fenk fa jaal naa def nañ xaaliyaha la féetee woon kaw saafilaha moo féetee suuf ba ñu paree wa am tar naa taw naa si ñoom hijaaratan ay xeer yoo xam ne min si jiil mu ngi jógee si ban bu tàng inna fi zalika nekk ni si loolu la ayatin mandarga kaawteef kay lil mu tawassimina ñeel ñi nga xam ne dañuy xool tey mu ne mu ne wa innaha naka dëkku boobu loot neexoon labi sabilin mu ngi si yoon muqimin bu jub koc mooy mu ngi si yoon wi nga xam ne dégg nga yéen waa Quraysin fi ngeen di jaar di dem saam mu ngi seen yoon wi inna fi daal nekk na si loolu la ayatin kéemtaan lil muminina ñeel ñi nga xam ne dañoo gëm